ñu kontaan lool nak ñun jigéen ñi parce que bus bi suñu bés la nee nañ sax at yëpp suñu suñu bés la mais tey da rawati ñu ak euh, le leader le président Abdoulahad Sarr ñëw dooleel ay jigéenam ne tey duma def dara damay topp seen ginnaaw nekk seen ginnaaw yëkkati lu bëri lu rëy lu rafet ne ta ina bus bi dama bëgg ngeen taarale ko kote, côté nekkul du kese wala dem solo ba rafet lekk naan mooy bés bi loolu yëpp mën na si mais li def ay don euh, social

loolu yëpp ñu koy sante yàlla parce que fi mu ko def war na koo def te jigéen jar na lu ne jigéen taaru jigéen jar na lu ne ndax ku ku juddu rek ku taxaw fii rek jigéen na la jur kon loolu ñu ngi koy sante yàlla ba mu amee xel moomu ñëw dooleel ay jigéenam ne ñëw leen yóbbu lii ngeen jox ko seen i nataangoo jigéen ndax ñun ñëpp tey fii ñu tey fii ñu taxaw ñun fii la ñu juddoo kon defe naa fi fierté mbuur tey bu ñëwee di doomu mbuur ne sama xel ak sama xalaat du ma yóbbu leneen dama koy jox sama sama dëkk ak fi ma jaar kon loolu defe naa ne alhamdulilah lañ ciy wax ah, waaw

dafa am geste yoo xamante ne day marqué à vie ndax bi mu indee ambulance bi médicalisé ñun dañ ci doon toog di ci xalaat ndax kat moyens yi nga xamante ne moom lañu am as néew day xaw a difficile des fois nga mën a liggéey wala nga li aspiration yi nga bëgg wala projet yi nga bëgg doo ko mën a am waaye alhamdulilah ba ñu amee ku mel ni moom mu nekk doomu mbuur autochtone koo xamante ne moom mën nañu jàpp ne waa bu góor lu bëri def na ko fii moom tamit mu ñëw topp ci parce que des fois di nga dégg ñu ne kii doomu kan la ñu ne doomu diw ñu ne addu ah, jaas ndax si lu say waaju doon def si lu baax moom nag ci sillage boobu la bokk ah ñu ngi koy au nom du CDS ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci ambulance bi waxoon naa ko médicalisé bi ma ne ko dafa ñëw à point nommé parce que dañ ko soxla woon waaw fi ñu ko bëggee mu ñëwaat defaat di capacité vingt lits yoo xamante ne vingt lits médicalisés d'une valeur de vingt million a ah, kon de li mu waxoon ne wala ku la dikk xaw ma reer su la joxee ndékki jox la añ kon jàpp naa ne sunu échographie bi ñuy doon jàmbat yaakaar naa kon mu ngi ci yoon bi yàlla na ko yàlla sottil ah ñun day ci population bi lu lépp lu nga xamante ne day yokk qualité soins sanitaires yi nga xamante ne ñun waa mbuurwaay moom lañ soxla suñ ci amee ñeneen ñu ñu ci taxaw di ci jàppale dañ ci man di kontaan dañu ci man di la ñaanal di la man di di di di wax ne wax fa dëgg yàlla lii lu ñu rafetlu la